ak njub akuk taalu bee doon sun alal ji nu jik lay jik ku nekk feneen jigul nituk tuuba lay sës ci bët daf ko dul gis moo waral yaruun kaneen ne siiw jot ci tuuba def ko muy tuuba xamal ne penc mi sol ci dàll sax rafetul sàkkantumaak tuur mbalit ak saw xamu tuuba lay indi jàmm ak njariñ ak gudd fan gu rafet xéewal guddul dog ba tuuba mooy ñu weg tuuba am xew di teg ay misik mbaataasu fecca kaway ak tëgg ciy bool ci tuuba jékkewul tuuba li dee xàmmee xewi tuuba xasiida woon ak alxuraan bernde ak waxtaane sëñ tuuba di wax si xaw gaa ki der yaag guy yu sew rafetul nañ wooye quartier yi seeni tur di yooyu Tuuba daarul xuddoos ki min nan ma naan wa jannatu fir dawsin wa mahwa yu mel noone di yooyu Tuuba futbal ci Tuuba ak takki jaaro nopp ci góor di nuru bandi du màndargam nituk Tuuba ku waa ki paska ki pourtant ab rek ipi ak yu mel ne ñoom ci waxiin méngoowul ak Tuuba ku nekk Tuuba te bëggu fan wu gudd di wey nay sàmm war ma tey jox cër sëriñ Tuuba jigéen ñi nañ fonk seenum col di sang seenu yaram tabayyi pantoulon ak bopp yi neen ci biir Touba di saw ci mbedd yi jékkul jaaduwul rafetul rawante naak nag bu dee feewar jumaay Touba Pastef fa yor taalu beeg nit nan ko fonk bu wér fum fecci ko doonoto dongob Sëriñ Touba ku yaru yàgg fi ku yaru wut yooru ji ndax sëñ bi du seetaan ku fi gàkkal darub Tuuba ku yaru yàgg fi ku yaru wut yooru ji rek ndax sëñ bi du seetaan ku fi gàkkal darub Tuuba ku yaru yàgg fi ku yaru wul yooru ji ndax sëñ bi du seetaan ku fi gàkkal darub Tuuba di saw ci mbeddi Tuubaa yépp jëllele naa leewar jumaa ji di miiri doomi sëñ Tuubaa ku yaruwul gàttu fan rekk al ko nañ ko ci xam ngir dee yu gaaw yi li koy jur mooy ñàkk a weg Tuubaa nooflaayu taalibe xéewal yi tey li ko jur coonop Sëriñ Bamba baawoon dem ngir Tuubaa kon nag nu delloo ko jukkal rekk rekk di ngor ci nun ta jox war ma dëkkam bi te mooy Tuuba la am fa Makka ak Madina xutsu ci darajaat ak yi nga nee la kiiw loolaa gi fii Tuuba di dëkk bopp soo fi dee jaamoo ko jëf-jëfiw ñu jox la mbarke tofal say jëf nga dem Tuuba di dëkk boob soo fi dee jaamoo ko jëf-jëf ñu jox la barke tofal say jëf nga dem Tuuba aljana barab yu mel noonu nag ngir yàlla waaju fa ne war ngay jubal say wax ak say jëf di yooyu Tuuba niñ fiy fuley jëfi yiw noonee lañuy fuleyit ak moy ci Touba ne bur yàlla rëyal Touba nun ñii di donga nan pasteefu tënku ci njub sunuy mbirit nan ko jël jébbal Serigne Touba te ko wóolu ko yit doyloo ko yam ci mbiram yaakaar ko faw te jëm yit fu dul Touba kon lépp lun ci xeewal mu agsi fi nun baam ca lun sentuwul barkeb Sëriñ Tuuba yal nan di taalube yuñ nangul sëriñ bi defal gërëm sëriñ moor mi way way wi te sax Tuuba wasalli rabbi salaatan bi salaami ala xayril waraak ñooña ñaak saabaam ya tuuba wasalli rabbi rabbi salaatan bi salaami ala xayril waraak ñooña mag saabaam yi tuuba na ñépp def teg digloo tey ma wax fi mu jëm ci wor ma ci Tuuba am kenn du ko ruur kii addu nag moo di sëñ Moor xam sa diine di wax akut du woro su jumaa ji déglu moste ju ngóor subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin yal na nu yàlla defal dégg ak topp barkeb Serigne Touba.